Euh, tey daanaka euh, amoon ngeen fa rendez-vous bu aju ci seen euh, candidat ci ci campagne ci information yi ma si am mooy jàpp nañ fa Guy Marius Sagna Abass Fall capitaine Touré xawma ma am na wala amul su fekkee mën nga ma ko confirmer bu fekkente ni loolu noonu la demee ak aussi ban ban ban xalaat nga am ci loolu ndax jàpp ngeen ni par exemple ci yoon ngeen ko teg ndax su fekkente ni décret bi génn. loi bi voté nañu ko ndax jàpp leen ni itam teg campagne bi ci suuf moo lay li nga xam ne moom moo leen war balaa dara di leen ci fekk ëllëg. merci beaucoup Pape c'est vrai que on a annoncé des arrestations. Mhm. ñi nga cité effectivement information bi mi ngi circuler amaguñ ci nag lu leer ce qui est sûr mooy Abbas Fall moom wax nañ see confirmé les autres Guy Marius aussi ñu ngi ciy wax mais xam naa parti bi dina ci génn communiqué bu la li am solo mooy ndox du bàyyi yoonam ñii fi nekk tey nag mën nañoo mujjee puso bi mu réer parce que tey ku ma dégg nit naan Sénégal démocratie la tey je pense que Sénégal tey démocratie Sénégal depuis hier dañ ko mettre entre guillemets ñun nous appelons à être des hommes d'État ñun ñu fi toog ñëpp un homme d'État mooy nit koo xam ne devant la constitution da ngay plier wu. Mm-hmm. c'est ça un homme d'État mm-hmm. un homme d'État aussi devant l'intérêt de la majorité du Sénégalais peu importe parti bi mu bokk devant cet intérêt là doo xool intérêt politique mm-hmm. voilà les deux notions fondamentales yi tax ñu naan ça c'est un homme d'État ce qu'on a vu dernièrement CEDEAO mi ngi ñuy yedd Union européenne ñu ngi ñuy yedd ñëpp ak ñuy yedd gàcce googu gisuma lu ko mën a dindi ay wax du ko mën a faxas ndax kat jëf moom du ne weng ay wax mën koo setal ñun nag dañu jël suñu décision. ne da ngeen di campagne. dañuy campagne ndax illégalité kenn du ko valider constitution mooy def la légalité du gouvernant décision wu conseil constitutionnel day imposer wu aux autorités administratives aux aux autorités juridiques à toutes les autres et aux autorités politiques de ce pays loolu mooy comme même conseil constitutionnel bu jëlee décision day imposer wu à lui notre constitution dugal des articles yu nga xam ne li ñu naan clause d'éternité mooy maanaam dan ko def nu nga xam ne ba abadan daayi man kenn waru ko laal Macky Sall moo ko fi battre campagne vidéo yaa ngi fi vaar nañ ko vaarati ko moom defe naa vaar du daw yaramam constitution bi du pour borom ñaari tur yi dama ko andi pour que problème bi ñu fi amoon dootu fi amaat ñaari mandat boo ji moo ko fi wax bi ci topp considérant 36 bi mu bëggee def bi mu bëggee wàññi mandatam bi. Mhm. conseil constitutionnel moo ne ko du ci dal doo ko fi wàññi parce que duñ la fal ngeen yokk nga wàññi. waaw bu leen bu leen bu bu dee bu dee yokk da leen a arrangé su leen constitution waxee bu leen bu leen yokk ñu ne ah ñoo ma ko sant waaye bu ñu bëggee wàññi ñu ne ko fa yokk tukk ni yax gu naqari nañu waxante dëgg foo faut qu'on arrête politique jarul lii politique jarul lii mandat jarul lii dem élection mu leer na ne élection yi boo ci demee da ngay perte nga ne naa ci xëpp suuf c'est de comportement kii ne sont pas dignes d'un nom d'État duñ ñu teg nag gàcce gu ne weng gii ba àdduna yëpp du ñu duñu du ñu mamb ñu ne ñu ñun amuñu droit circuler librement di ci ci dëkk bi qu'est-ce qu'on a fait bu fekkente ne nit am na droit violer la constitution au vu et de tout le monde waaye ñun ñu ne ñu du ñu dem campagne ku kumba am ndey ak kumba amul ndey bi kañ lay jeex kañ lay jeex quand est-ce que les hommes politiques vont pouvoir regarder les Sénégalais, peu importe leurs orientations politiques, mais nous xool les Sénégalais en tant que Sénégalais tout court. Respecter les droits, <coughs> ses opinions différentes. Ku nekk am nga droit bokk fi nga nekk fu nekk y a pas de problème mais dafa am loo xam ne dañ dañ dañ ko bokk. ñoo bokk Sénégal gii nga xam ne suñuy maam ñoo ñu ko jox. <coughs> tur wi ñu jox way wi ñu am loolu kenn waru koo mujjee mu réer et je suis désolé ce régime de benn Bokk Yaakaar gàcce gi ñu teg ba ilaa yow mi diini mais duñ leen ko baal ah. duñ leen ko baal. d'accord d'accord donc que personne ne vienne nous parler de notre campagne bu ñu buggee nag nañ tëj tëj moom tëj nañ mille dawul seen yaram. Ousmane nag ci kaso bi Bassirou ngi ci kaso bi ku wax ñu tëj mille sénégalais boo leen téyee yaa ngi souffrir loo mille familles donc souffrance boobu nga teg ko nit ñi ñuy wax nga violer suñu constitution dàq suñuy suñu élection Sénégal askanu muñkat lañu régime Macky Sall bi luñ fi dundul amul duñu nañ fi coronavirus fekk nañu fi duñ ne moo ko teg sénégalais yi mais dund nañ ko. am nañ fi daanaka ñaari révolution yu metti histoire Sénégal sociologue yi xam nañ ko musuñu am des soulèvements populaires hors contexte électoral musu fi am inflation yu graaw taux d'intérêt moyen cinq pour cent je ne vais pas revenir sur les données nombre de pauvres yokk nañ dans ci réew mi fa Ablaye Wade doon defee taux d'indice de développement humain mu gañu ñu gañe ñu huit points en dix ans waa ji quatre points la def que des contre-performances sur le plan économique suñu justice dara desatu ci loolu yëpp ñu di ko dund di ko muñ di xaar bés bu rafet ñu wane ñu ñooy kan et aujourd'hui bés boobu lañ ñu xañ donc qu'on ne nous parle pas te ku ñu arrêté ak suñu campagne dañuy campagne ba sàmba di ca dem ba luñ ci fekk ñu jël <coughs> jërëjëf alors euh, monsieur Fofana euh,